بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه مبكي السلام عليكم ورحمة الله مبكي ريو ميك بيتم ريو مبكي توب دي دغلو اميسيون بي دي باجم سنة مبكي سيفر شين بي دي ام تيلي في تي مسار نونغي لين دي نيو دي نيو سون ديريكتور موسى صو سون كاميرامان سلام سون كورناتر موسى نيا سونو mboolem liggéeykat yi nekk ci bërëb bi noo ngi leen di nuyu di la ñaanal jàmm dellu si waat ak yéen ci seen beneen numéro ci émission boobu di pajum sunna tey incha allah dañuy waxtaan ak yéen lu ñuy tuddee ventouse ventouse euh, lenn ci li ñuy jëfandikoo di ci saafara ay jàngoro la dinaa leen bàyyeeg sama euh, xarit bi sama waay si bu soobee yàlla moom dina ñëw ak yéen de façon très détaillée. ci bienfait yeeg méthode yeeg yu ni mel méthode bii nag tàmbale naa siw léegi ci réew mi mais ñun bañ koy def boobu réew mi kenn xamu ko ñun ba ñuy def ventouse boobu wala boog ay benn benn nit ñoo ko def ñoo ko doon def waaye tey alhamdulilah wax nañ cee wax a wax wax ba ay nit a ngi ubbi ay cabinet nit nit ñaa ngi ubbi ay centre di def ventouse bii am na ñoo xam ne sax ñoo ngi ciy dem di jënd matériel bi di ko def waane wallahi li ci nekk ci njëriñ ñëpp laa koy conseillé góor ak jigéen est-ce que xam ngeen feer boobu tudd AVC kuy ventoux su du du la dal loolu moom je damay défier ñëpp kuy ventoux su ci kàttanu yàlla AVC du la dal mbokk mi dina ci dikk de façon très très détaillée incha allahu taala kon Aline mën nga leen expliquer bu soobee. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaatu wasalaam ala euh, di sant yàlla bu baax di leen jaajëfal euh, ci teewaay bi fii ci centre Rokhaya Kër Massar donc euh, ñi leen di wax ci les bienfaits d'abord. Euh, de la hijama donc euh, hijama euh, ñu koy waxee ventouse wolof français ventouse donc ñëpp xamee ko non. olof ñu ngi wax donc mon berina na ay njëriñ torop berina na ay njëriñ première njëriñ bi dina dimbale nit ki sur amélioration day améliorer circulation sanguine bi donc nit ki day tax booy def ventouse tout le temps ça deret bi day circuler ni benen mbir bi day soulager ay maux de tête wala euh, ay douleurs yo xamné day nek ci yaram bi maux de du dos wala nettoie les colons c'est-à-dire euh, côtes yi côtelette yi buy am problème dina ko nettoyer bu mu set donc euh, le fait que ngay pratiquer ventouse ñukoy koy ci sa yaram bi tout le temps dina dindi bépp métit yo xamné day nek ci nit dina ko soulager euh, day améliorer aussi euh, fonctionnement respiratoire donc boy am problème noy euh, muy am problème jafé jafé donc boy faral di def ventouse euh, da koy da koy dindi donc ko xamné tamit deretam day euh, coaguler donc euh, day way donc koku tamit buy faral di def ventouse day dem ba deret bi dee bi day jeex ci yaram bi donc day ensuite les ça réduit aussi les les inflammations donc euh, ak poules lo xamné active day activer aussi le système euh, lymphatique donc day détoxiquer yaram vitamine donc yaram bi bu amé yene toxique yo xamné day dafa nek ci sa yaram ventouse da koy dindi donc euh, gis nga day réduire aussi hypertension hypertension boo ko amé ventus bi da koy réduire bu baax a baax te day soulager lu ñuy wax stress ak euh, dépression surtout cadre cas folie boy am cas folie ni dépression ño xamné dañuy am loolu. mom euh def nañ ci ay séances yu bëree bëri nit ño xamné dañuy ñëw fi ci centre bi am jafé jafé bobu nga défal leen euh nga gis né dañuy sant yalla bu baax ba donc wax nañ ci cadre day soulager stress parce que bo xolé am yenn ki yu fi nekk ni donc yii yëpp euh, day firndeel ne yooyu yëpp ventouse bokay faral di def dina ki donc amna na ventouse dafa am point yo xamne si lañ koy defé dafa am ay zone yo xamne ne zone comme bo xolé bi chef euh, image bi ni yaa ngi gis boo xoolee bu fekkee ko xamne day am kii zone de stimulation des reins comme koo xam ne problème rein lay am donc am na point boo xam ne mooy dixième point bi ci code bi nii boo ko siy def da ngay gis ne da ngay am euh, traité loolu euh, donte ne doo jot rein bi mais le fait que nga placer euh, ventre kaas bi fi nga ko war a placer da nga am rein bi koo xam ne tamit ndigam day métti ceinture bi surtout ci colonne vertébrale bi donc booy teg ventouse bi tamit dina la dimbale bu baax baax ba feebar boobu Euh, dina la euh, muccal donc moom bëri na fépp lañ ko mën a teg ci yaramu nit ki muy góor muy jigéen fépp lañ ko mën a teg ci yaramu nit ki donc boo xoolee même ci kii bi image bi tamit boo xoolee bu baax da ngay gis euh, kii yëpp day day jël parti yëpp fépp bépp parti boo xam ne nit ki day sentir ay métit rek dina ko kii muy cadre stress Euh, métit yoo xam ne doo xam métit bi fu mu mooy santé anormal donc yooyu yëpp ventouse bi da si da si euh, am na si njëriñ bu baax a baax a baax a baax donc dañuy conseiller nit ñi ñu koy def lu bëree bëri même bu fekkee dara dalu la sax dara dalu la ventouse da nga ko war a def benn mbir day raxas yaram bi ba mu set euh, parce que suñu yonent bi alayhi salaam moom moo ko moo ko jàngale moo ko diglee aussi pour ñu koy def parce que dina dindi ay feebar jàngoro yu bëree bëri ci yaramu doomu aadama fekk ne feebaroo dara dalu la sax nga toog euh, deux mois ñoo def nga toogaa yeneen deux mois sax walla un mois ñoo def parce que am na ñoo xam ne dañuy ñëw euh, simplement pour def xijaama kese après delluwaat seen seen liggéey parce que da day soulager nit même fatiguement général boo koy am Euh, mu lay sonal boo ñëwee euh, nañ la defal ventouse instant ñu bëri xam nañ ko moom nag def ko simple na parce que nekkul ne lu jafe la trop trop euh, il suffit nga comprendre ni ñuy utiliser matériels yi donc yi ñooy matériels yoo xam ne ñoo génn yii la ñuy utiliser donc bu njëkk kaasu verre lañ doon utiliser mais léegi am nañ matériels yoo xam ne comme lii nii donc lii mooy kii bi léegi boo ko jëlee da nga koy placer yaa ngi gis nii lay mel léegi beneen bi da nga koy teg si yaramu nit ki boo ko tegee après da nga koy pompe boo ko pompe fekk maase nga ko ak quarité ba yaram bi yëpp tooy bu baax léegi nga pompe bàyyi noonu ba benn certain moment cinq minutes nga dindi ko soog koo dagg tuuti tuuti donc boo ko daggee nga tegaat verre bi après pompe waat su boobaa da ngay gis nit ki lépp loo xam ne déchet la woon ci côté yooyu euh, da koy dindi da koy dindi te am na ñu bëri ñoo xam ne euh, donc euh, jaar nañ fii ñoo xam ne dañ doon am métit yoo xam ne subhanallah métit yu métti métti la donc dañuy def benn chance ñu sant yàlla bu baax a baax si kattanu yàlla. Euh, man mii di wax suma benn xarit boo xam ne jeune da koo amee woon lu yàgg yàgg yàgg. donc dama ko defal benn yoon ñaari yoon yàlla dimbale ko mu tàggoo ak métit yooyu donc cela veut dire ventouse lii rek la. am solo trop te dañ koy conseil ñëpp ñu def ko donc man maa ngi tudd Aliou euh, di leen jaajëfal bu baax a baax si seen teewaay si centre Rokhia Kër bu ay laaj